Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. askan bee ko laaj ndaw yee ko ñaan nee nañ président Macky Sall may leen ki nga xamante ni mu di Ousmane Sonko jàmm ak salaam ndax askan bi ñoo ko soxla askan bi ñoo ko woo askan bee ko wóolu kon daana yaakaar naa ni doomu alhamdulilah ba léegi yéen a ñu doon euh, gis depuis sàng ba tey ci li nga xamante ni am na fuñ ko njëkkee nee naa leen ba léegi tamit ci mbir mi la bu ñëwee ci mbir mi ba léegi tey ji yéen a ko gën a xam tey tey région de Pikine région de Guédiawaye région de fépp tey ji yaakaar naa ne ñëpp a bàyyi xel en direct tey ji ci biir Salam Vision ci loo xamante ni tey ji kenn dootu ko naatable ci li nga xamante ni tey ji gars yi tey loolu lañ def mais tey sama directeur tey damaa damaa togg ak ma ne la tey kon da nga may interview ma ne ko tey dama lay interview tey ji directeur ziar naa la gannaaw boobu dama lay bàyyi nga nuyoo après ñu doog a xus tuuti ci biir waxtaan bi. salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp euh, di bëggee ñëpp ñu ngi seetaan à travers Salam di ndokkeel ñëpp di ñëpp ci bis bi di baalu ñëpp ak ci weeru koor gi te ji baal ñëpp macha allah. tey ñu gis ni tey jii lu yéeme ci waa Pastef lu yéeme ci askanu Sénégal lu yéeme tey jii ci mobilisation bi nga xam ne tey yéen def ngeen ko mu tombé tey ji samedi bi nga xamante ni mu nekk tey ji samedi bu mujj tey ji ci weer koor bi tey waa Pastef génn na tey ji ñoom ñooy wane seen bopp taxawaay beeg tolluwaay bi lan la. Euh, macha allah lu yéeme rek nga ko mën a tuddee mais daanaka ñun tuddee wuñ ko du yéeme ndax euh, ku xam Pastef xam bii bi mooy don de soi pour la patrie comme maanaam da ngay joxe li nga am yëpp ngir ngir ngir ngir lu suuxat réew mi rek xaar sans xaar dara au retour. kon lii nii yàgg na ci Pastef depuis tàmbale ba ba léegi daanaka mun nañu wax sax kon lii moom moo ko sanc kon lu yéeme kon amu fi ndax ñun dara fekkul ci suñu bët maanaam dara kayul ci ñun macha allah. yéen ko dégg directeur wax na ko. yéen a ngi am léegi loo xamante ni moom ngeen yor ci ginnaaw mu nekk baas bi nga xamante ni mu di baasu Pastef te ñu gis tey suñu directeur tey ji nekk ci wet gi dend ak Sonko tey ci biir baas bi tey ji ñu gis ni mu def tax waay bu mat sëkk sëkk sëkk tey ji ci bis bi tey ji moom lan ngeen koy ñaanal ak tey ji lan ngeen koy conseil ci li nga xam ne tey ji def na ko tey ji ci biir Pastef loolu duñ ci wax euh, ba ba ba tax watu waxuñu ci fondement bi lii mouvement ba ko ko gis xam ne mouvement baasu Sénégal fës la buñ som fondé ma ñaa même pas encore trois mois mais vu perspective mouvement bi vu lancement am euh, vu ñu muy doxe moo tax tey ji mel na ni mouvement buñ fondé il y a francs maanaam euh, maanaam fondement am ci base yoo xamante ni base solidarité la base action la base base maanaam regroupé na lépp regroupé ñëpp ndawu Pastef di dox ci élan wu jàppale Sonko ci 2024 ci lépp lu ko fal waaye di doxaal ci élan wu solidarité loolu moom ëmb mouvement bi tey nag mu ngi àndal jeunesse Lansar ñëpp ànd ak jeunesse Pikine ñëpp ngir dox ci action wu solidarité ngir taxawu banlieue bi ngir lancé waale tamit campagne président Ousmane Sonko ngir ñu mën koo fal incha allah ci 2024 bi ci kàttanu suñu borom. suñu kàddu jeexantal nag duñ def leen lu dul ñaanal président Ousmane Sonko yàlla muccal ko ci Macky ak ñi mu àndal di ko ñaanal jàmm incha allah di lancer appel euh, ci chef religieux ak ñëpp ñi ci war a wax ci ñëpp ñi ci mën a antu ñu artu ci ngir ñu may président Ousmane Sonko jàmm ndax jàmmam kat moom mooy jàmm Sénégal di ko ñaanal yàlla may ko wér may ko tawféex ba deux mille vingt quatre incha allah au soir du vingt quatre février incha allah ñu ñaan yàlla mu may ko ndam lu sedd guy ak lépp lu mu ci doon waaye fi ñu jeexalee Ousmane Sonko jàmm di ko ñaanal jàmm di ñaanal wax makeeg ñu ma àndal ñu may ko jàmm ndax jàmmam mooy jàmm Sénégal salaamaaleykum Dakaru salaamaaleykum diaspora euh, maa ngi nuyu ñëpp man la Ndiaga Seck di président mouvement Sénégal Fës ma ànd ak samay naatango xalifa Baro di vice président mouvement Sénégal Fës ak Cheikh Tidiane Gueye di secrétaire général mouvement Sénégal Fës tey suñu bés bi tey dañu ñëw Pikine Pikine Lansar Pikine euh, quartier bi mu tudd Lansar la donc foofu la ñu ñëw cellule waa Pikine Lansar tey ñoo ñu invité bon dañu ne tey ñu ñëw jàppale leen ñoom tam parce que ñun suñu mouvement bi mouvement de soutien la boobu ba tey ku ñu xam xam na ñun ci nu mu tudd ci sociale la ñuy dox donc def nañu suñu euh, ndogu patriotique samedi passé à truc à Kër Massar donc bañ ko defee on a fait plus de mille kits donc mu nekk réussite totale tey nag ñu ñëw jàppale suñuy doomu ndey parce que ñun Pastef rek moo ñu yor fu ñu Pastef woo dañuy dem wuy gi parce que ñun euh, mouvement bi Ousmane Sonko moo ñu yor ñun moo ñu ñor parce que mouvement de soutien la pour Ousmane Sonko ñuy xool nu ñu def ba fal ko en 2024 mu nekk président de la République du Sénégal donc tey suñu taxawaay fii mooy waa Lansar yi ñoom ñoo ñu invité pour ñu ñëw dooleel leen ñu ñëw jàppale leen ba nga xam ne tey Pikine yëpp dinañ xam ne tey Lansar cellule Lansar taxaw na donc mu doon ñu jàmbaare ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu moo tax ñun ku dul liggéey duñ la wuy ji donc ñoom ay liggéeykat lañ moo tax tey ñu def suñu déplacement métti na trop parce que ku jógee ci distribution ndogu plus de 1000 kits semaine passée week-end passé tey ñu waat fii ci Pikine bëgg a defaat la même chose c'est pas facile donc mais lépp Ousmane Sonko jaral nañu ko suñu réew Sénégal jaral nañu ko ñun ndax réew mi moo ñu ñor di lancer appel aussi insécurité bu nekk ci euh, euh, kii réew mi actuellement problème yi fi nekk nañu ñaan yàlla li laay war a suuli ñan ñooy suuxee problème yi nañ ko wàccee ci suuf ndax comme ni ma ko yàgg waxee fii Sénégal la problème xeju fi nañu bay ñun ñëpp ñu dem élection deux mille vingt quatre ku mun sa morom duma fii amul ragal. waaw man euh, président de la république li ma koy ñaan rek nay xelaat population bi parce que mbir mi du Ousmane Sonko population sénégalaise la tey bu ñu nee Ousmane Sonko du dem élection mbooloo moo ko topp tey mbooloo moomu nan la ñuy def donc tey bu ñu nee du ñu dem élection rek problème commencé na donc pour jàmm am. nañu bay ñëpp képp kuy candidat képp bugg ma nekk président nañ la bay nga nekk candidat nga dem élection yëf yi moom ci urne la rek ku mën sa morom duma affaire bi du xeex du intimidation du dara nañu bay mu sedd guy ñëpp dem ak seen xel ñu dem vote ji et je sais que soiru 25 février 2024 incha allah man du ma ne soir sax balaa midi man je sais euh, victoire dina triompher un peu partout dans le monde ci Ousmane Sonko parce que ñun gëm nañu liggéey bu ñu def que premier tour la ñuy gagné ñun du ñu dem ba deuxième tour. loolu moom ci waaw. dernier kaddu bi. waaw dernier kaddu bi nag mooy maa ngi gërëmaat waa Pikine rek Pikine bu ñu fekk si nii ñu dalal ñu teewal ñu muy Yacine Ndiaye di suñu présidente section féminine jëkkëram di suñu responsable des sages. ak ñoom mbay donde ñi nga xam ne mooy responsable cellule Lansar bi ñu fekk ci fii donc ñu ngi leen di sant di leen di gërëm di leen de mouvement bi nii rek la ku ñu soxla foo ñu munti soxla daan la fekk si incha allah ma jox kaddu nag suñu secretaire général bi aussi Cheikh Gueye mu sandi si quelque kaddu incha allah ñu mun a avancer jërëjëen jëf waa euh, kay merci beaucoup président jaga defe naa ne euh, wax nga lépp xanaa kay li ñu ciy dolli rek mooy dañuy am contentement ñëw fii si Pikine fekk si leen ci seen journée de distribution de ndogu de yàlla dafa def 2019 ba léegi euh, chaque année dañ koy amal à travers Dakar bu ko defee mën a ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën leen jottali yooyu distribution bu ko defee ñu mën ci xewlu ci koor gi daal en tout cas daal ñun mouvement Sénégal First comme ni ko le président Ndiaga waxee léegi euh, on est très très très engagé derrière le président Ousmane Sonko pour l'accompagner à la soirée du 25 février incha allah te xam naa ne yàlla dinañu sagal yàlla dinañu may ndam incha allah euh, li may lancé waat rek mooy <clears throat> je fais appel au chef de l'État monsieur Macky fu mu nekk nii coow li bëri na fu mu nekk fit yi taxaw na kenn nelawatul ndax on a peur de notre lendemain mais Sénégal dañ ko xamee ci dëkku teraanga dëkku jàmm ngalawaay bu ñu créé loo xam ne day indi instabilité ci dëkk bi nañu bàyyi ñëpp ñoo xam ne apte nañ pour doon candidat euh, pour les élections présidentielles à venir nañ leen bàyyi ñu dem affaire yi méttiwul vote la ku ku nekk boo woolo sa bopp rek na nga xaar à la soir du cinq février xool li urne yi di joxe. voilà en quoi ñun ñoo ngi derrière le président Ousmane Sonko te xam nañ incha allah il sera notre candidat c' le candidat de la jeunesse c' le candidat euh, de tous les patriotes du monde dina nekk candidat de incha allah il va gagner dès le premier tour 11h moom defe naa ne jubilé bi dina tàmbale. xam nga la population est témoin gis nañ dossier Adji Sarr nu mu fa demee. ba léegi ñoom waxatuñu sax dossier Adji Sarr dañuy ngoy ngoy ci dossier diffamation te diffamation wax dëgg fa neex yàlla pour une première au Sénégal ñu topp ci nit nii une diffamation ak boo xoolee niñ ko accéléré donc cela veut dire que ne ñoom am nañ beneen plan buñ ci buñ ciy séntu waaye nag euh, li may wax rek mooy nekk ak plan bu ñu mën a euh, mën a créer yàlla taxaw na da yàlla c'est le bon juge de yàlla xam naa ne dinañ dinañu taxaw dinañ jàppale ñoom lépp loo xam ne ñoo ngi koy fexal yàlla bu ci àndul peine perdue la duñ ci mën dara waaw de population bi ils sont témoins lu luñ ci mën a taxawal ak luñ ko mën a gàllankoor aussi la population elle la là ah, luñ ci góobee rek nañ ko gar donc c'est ça. Voilà, donc euh, nous sommes aujourd'hui à Pékin, Lansar, euh, chez notre amie grande patriote, Madame Yassine Ndiaye, euh, venir ensemble, n'est-ce pas, donner notre participation, notre soutien pour la grande journée de distribution de Ndogu qu'on doit faire cet après-midi. Euh, le mouvement Sénégal First n'est pas à sa première édition. Nous, nous sommes toujours connus dans le social. Nous faisons beaucoup d'activités dans le social. Euh, le président l'a dit tout à l'heure, la semaine passée, nous étions à, à Kermassar. Nous avons, nous avons distribué plus de mille kits Ndogu euh, que nous avons donné donc à la population et faire avec la population une communion, n'est-ce pas, durant cette journée-là. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes à Pékin pour faire la même, la même euh, manifestation, la même cérémonie de distribution de Nogu. Et que nous lançons, la, euh, nous lançons un appel à toute la population de Pékin de venir nous rejoindre au niveau du rond-point Canada. Donc c'est là où nous ferons donc la distribution. Et que, et que comme on le sait, le, le PASTEF, PASTEF c'est un projet, c'est un grand projet qui est, soutien, qui est soutenu par de grands hommes. Ousmane Sonko est un grand homme, soutenu par d'autres donc à travers le monde. et qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. Le Sénégal est à la croisée C'est très important les périodes que nous sommes en de vivre. Dans un pays, lorsque les jeunes s'élèvent, comme un seul homme, pour dire que voilà notre candidat, donc c'est moment de lancer un appel au président de la République. De dire qu'il faut suivre les jeunes, il faut regarder les jeunes et comprendre que le pays a besoin de ces jeunes-là pour demain construire Sénégal. Ensuite, nous, nous sommes aussi dans la même lancée, nous sommes dans, dans, à s'inscrire, surtout les primo Parce que ce qui est arrivé au niveau des centres de vote, nous, tous, tout le monde l'a vu. Des jeunes sont en de, se, mobiliser. Alors sachez que nous sommes déjà à, presque 15 jours déjà, déjà écoulés. Il reste encore 15 jours. Le temps est très petit. Donc on demande aux jeunes de se mobiliser davantage pour aller s'inscrire. Que tout le monde ait sa carte d'identité et sa carte d'électeur. C'est très important pour changer ce qu'on veut changer dans par les unes. Nous, nous sommes pour la, pour, pour la la non-violence. Nous, nous sommes le changement démocratique de ce pays-là. Et Inch'Allah, on travaille. Tout le monde travaille pour ça. Et Inch'Allah, ça va payer. Le dernier message, c'est remercier les, nos amis de Pékin, leur montrer qu'aujourd'hui, nous sommes entièrement solidaires, nous sommes entièrement prêts à travailler avec eux. Vraiment, il y a d'autres échanges qui vont venir, d'autres programmes vont venir, et nous leur demandons quand même de travailler davantage dans la grande solidarité, dans la plus grande communion, et l'union fera merci et bonne Ousmane Sonko. Vraiment, toutes nos prières pour lui. kilo le sache, qu'il ne le sache pas, tout le monde prie pour lui. Et Inch'Allah, tout, tout ira le mieux pour lui. maa ngi lay ziar bu baax a baax di la delluwaat tamit wàccaay bu baax a baax tey jii naka ngeen préparé tey jii seen bis bi nga xam ne tey waaj ngeen ko tey muy samedi bi mujj ci weeru koor bi tey ngeen ci waajal tey jii def seen ndogo bi nga xamante waa Pastef tey ñoom ñoo ko wane jàkkaarloo. waaw euh, euh, ndogo bi ñu préparé dañ ko préparé ci fulla ak jom bi ñu gis ci Sonko ak fayda bi nga xamante ne mi ngi koy wane ngir bëgg a defar Sénégal ñi nga xamante ne nii dañu fee nekk nekk ay néew di doole ñu jox leen ko ñu dolli ñaan ba sunu leader bi mën a mucc ci pex lii ñu koy fexeel di ñaan sunu borom tamit réew mi nekk ci jàmm ba ñu bàyyi ko mu dem élection ndog yi chaque année dañ koy def saa ñu koy def tamit dañ koy def amicablement ñëpp dañ ciy daj ñëpp ñëpp ci ñëpp ñëpp ñëpp ciy am day dej ci ñëpp waaye ñi ngi ñaan sunu borom di ñaan tamit gouvernement bi nga xamante ne moo ñu jiite tey ñun ci jàmm lañuy dox te li ñu bëgg mooy ñu bàyyi réew mi lépp nekk ci jàmm ñu dem ci élection ci jàmm ñun jàmm la ñu woote jàmm jooju nag ñu ngi ci woo képp koo xamante ne ni patriote nga li ci woo képp koo xam ne sénégalais nga di ci woo képp koo xamante ne nii homme religieux nga ñu ngi lay woo ci jàmm jooju. tey jii tey dañuy gis ni Ousmane Sonko amul xaalis bu mu yëkkati jox leen amul moyen bu mën a génnee ci biir poosam jox leen te yéen da ngeen ko gëm lool te dañ ne politique xaalis moo koy def ban secret ngeen gis si Ousmane Sonko ba tax ngeen topp ko. jub dëggu bëgg réewum loolu lañ gis ci moom ak doon patriote. fas yéene defar Sénégal ndax réew mi depuis indépendance ba nëgë ni li ñuy dund metti na trop nasaraan si fi nekk di ñu jiite ñun li ñu liggéey nasaraan si lañ koy jox loolu lañ bëgg mu jeex sunu réew ñu téebaat ko sunu loxo kenn ku ci nekk gis ci sa bopp ñun buñ ko fekkewul suñuy sët fekke ko mbaa suñuy doom mais lii xew ci réew mi depuis indépendance ba nëgën ñun loolu lañ bëgg mu jóge fi changement lañ bëgg changement bu bu radical bu wóor te loolu lañ gis ci Ousmane Sonko te loolu la ñuy fas yéene taxaw ñun ñëpp jàppoo nekk benn ñafe ba mu jot réew mi programme bii mu yor nii ñun gëm nañ ne moo yor mooy suñu réew mi suñu réew mi jëm ci kanam ndax li am Sénégal amul France amul benn réew ci àdduna am nga zircon am nga pétrole am nga gaz am nga fer am nga euh, am nga euh, euh, marbre li ñu am ci richesse non réew mi kenn nelawatul parce que ñëpp a yeewu léegi ñëpp a yeewu ñëpp a xam Sénégal lim am ak lim ñu mën a jural mais fooyee biñ koy fooye ak caaxaane biñ koy caaxaane suñu réew mi nga xamante ne moom la ñu am Serigne Touba ne fi maam El Hadj nekk fi Bou Kounta Ndiassane nekk fi Serigne Laye nii ne fi nit ñu baax ñooyu yëpp ne téyel ñu suñu réew mi ci ñaan ak dëgg ci dëgg googu lañ bëgg teg suñu réew mi mu jëm kanam wax dëgg fa yàlla nañ ñu dimbali ngir yàlla ñi nga xamante ne ni bëgguñu suñu réew dem nañ dem nele ñun ñu bëgg suñu réew dem ñu bàyyi ñu puus dem ak sunu réew ndax Sénégal réew la boo xamante ne ni man dama ne tey jii billaay bu yàlla doon wàcc ci réew ci àdduna bi fii lay wàcc senegal bu amee réew mu muy dem Touba lay doon ndax liñ fi jëf ci lu baax ak yiw non kenn mënu ko yàq fii képp ku nekk ci dëgg non dana metti de mais yàgg yàgg dëgg yi mujj ah wallahi alazim barki borom Touba ñun nag yàlla dimbali nañu nooyal suñuy xol def ci suñuy xol bëgg sunu réew réew mi ñu bëgg nag yàlla nañu yàlla dimbali te xam naa ne yàlla dinañu dimbali parce que ku nekk ci dëgg <laughs> wallahi alazim yàgg yàgg yàlla yow lay dina jarul seede mais képp ku nekkul ci dëgg ak loo mën a teg yàgg yàgg yàlla dina la weddi. kontaan nañ ci yow. jërëjëf albarka. alhamdulilah doon na kàddu yi yoo xamante ni kàddu yi am importance la yëkkati. bu ñu nee yaayu Pastef mooy tey ci biir këram tey ji la ñuy defaree lépp fas ne génn ci biir biti jox ko askan bi ñu xewlu ko ci doole waa Pastef yaay ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama doom. bàyyi nga am jàmm. maa ngi sant bu baax di. ñu bàyyi la nga nuyu ñi lay seetaan. ak naka ngeen waajale tey seen bis waaw sant yàlla rek bu baax rek sant bu baax ndax lii yëpp ci xéewal yi la bokk ak euh, ñu bëgg rek incha allah rabbi le vingt cinq bi euh, le vingt quatre bi bu neex yàlla ñu xam ne ay jàmbaar ñoo ñoo jël ndam ñoo xam ne ay ñoo xam dañoo déterminé ñoo jël ndam ay jeunes yoo xam ne ànd na seen i yaay seeni i jigéen seen xarit seen i àndandoo peuple bi yëpp ñoo jugandoo te ku jugandoo ku ne rek euh, am doole te doole mbooloo mooy doole moo tax tey jii ñu daal di organiser ndogu mi ñu fas yéene ko def ba mu neex jublu ci jaamu yàlla nag ak ñaanal ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko yàlla defal ko jàmm musal ko ci ndog yi musal ko ci fakkastal yi musal ko ci yi nga xamante ni moom mooy ndog sërëx yi koy tegal ngir yàlla defal ko jàmm ak xéewal bu ñu defee loolu rek boo defee ñu euh, léegi ci kanam daal di étaler daal di xool jaamu yàlla yi ku am ak ku ndax ñun dañoo bokk ci parti boo xam ni wala mouvement boo xamante ni wala euh, euh, ci vision boo xam ni ñun partagé la ñu wax àndandoo defandoo lu baax. waxandoo lu baax di di yëglante te lu ñuy def lu ne mu doon lu baax ñun ñu yéene ko askan wi ndax ñun lu askan wi bëgg loolu lañ bëgg lu askan wi bëggul bëgguñu ko xamuñu kompaloo xamuñu ay galgal nit ak loo xamante ne bii bu ko defee ñu am daanu suñu borom ñun jaamu yàlla lañ xam bëgg yàlla bëgg suñu peuple fas yéene jaamu yàlla ci peuple bi ba bu ëllëgee suñu peuple siggi suñu peuple nekk eh, peuple bu émergent kon nag nañuy ñaan yàlla suñu dogal yi liñ ci dogu tey ci barke weer koor bii yal na yàlla def barke te falal ñu gëm boppam ñu gëm suñu bopp gëm boppam ñu gëm suñu bopp ndax ñu bokk pas-pas ñooy ànd ñu bokk yéene ñoom ñooy jëfalante ñu bokk bëgg-bëgg ñooñ ñooy ànd ñi mën a ànd rek ay ànd Pikine li muy rëy ku ne xam na ne doo romb Pikine ñu ñàkk dañuy gore ñuy am dañuy gore te dañoo déterminé wu ci suñu personnalité bi ñu yàlla jox muy tuute ka bari nawloo nañ ko bëgg nañ ko te nag dara fekk suñuy bët ndax bu ñu neexoon tey ji ñu defar suñu gox bi def ci lu ñu neex ndax bu ñu xoolee ne Pikine nangam moo fay xew teg ñu ay bandis wala ñu jël suñuy doom teg xamante ni fi ne dañuy jaamu alal te ñun ba ñu juddoo ci Pikine jaamu alal jaamuwu alal jaamuwu nit yàlla la ñuy jaamu fonk suñu kilifa diine yi fonk suñu lislaam bi fonk ñi nga xam te ñoo fi samp lu baax ba suñu dëkk bi baax kon nag di indi lu baax di wax lu baax te yàlla rek tax la ñuy àndal keneen ku ci nekk nag maandu nañ ca yow loolu am nañ droit ndogu yu ñuy def nag dañ koy def bëgg koo def ba bu ëllëgee ñu étaler ko def ko koñ ba koñ ndax tey dañoo naroon a baas waaye ginnaaw réew mi moom yaa ma gën a xam ak peccum ginnaaw boo baasee ñu fekk la fa yenu la foofu la yóbbu dañ na siiw a mucc kaddu yi rafet na kàddu yi rafet na yëkkati na kaddu yi dama koy bàyyi mu dem li ci kanam rawati bët man ak yen bu dégg rek na waaxuta ñëw te bu déwénee yàlla may ñu jàmm fi ñu fekkee ko tatal ko ñëpp ñëw teewe ko ñu def ko ndogu yoo xamante ne bi ñëpp a ciy bokk ñu def ko ngir wàcc xilaa yi taala ndax yàlla rek moo nu ñor ak suñu peuple Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah xool seddati na. gars yi nee cinq victoire waaye man nag dama ko du cinq victoire cinq cinq défaite la nijaay ba lay siyaar. ñu ngi dolli ziar bu baax. mbaa yaa ngeen jàmm ñu kay. naka ngeen waajalee tey ji seen bis bi. waaw ñu ngi ni joxe ndogu rek joxe ko ndax kenn dañ koy joxe nii rek waaw dañ koy joxe ndax ñëpp ñun jàmm rek la ñuy dox Sénégal ñun dox jàmm di woote jàmm di woote Sénégal yëpp nag dañuy ñëw di jël si ndogu dinañ woote jàmm rek la paix tooñ kenn nag ku yàqal ñu ngi lay dérange ñu ngi woon na du wax waaye nee woon naa ko naa ko wax loo kon dama koy bàyyi mu yegg am fi nga xamante ni fa la jëm. waaw man la Ababacar Sadikh Faye di adjoint coordinateur communal Pastef Djiddah Thiaroye Kaw euh, nekk le responsable de la cellule Ramsar. waaw euh, gannaaw yàlla dañuy dañuy santaat yàlla bu baax a baax aussi di wax ni lii def yàgg nañ ko def bii mooy suñu troisième année def nañ ko daaw mu am une réussite totale. ren alhamdulilah mu gën a yokk parce que boo xoolee mouvement d' ensemble bi ñu soxla am nañ ko ci patriote yëpp répondre nañ li ñu am seen dërëm seen ñaar dërëm comme ni ñu koy defee toujours donc alhamdulilah daal bu ñu sante yàlla nag ci loolu bis bi comme ni ngeen ko gisee donc ni ko war a taxawoo yëpp taxawoo nañ ko eh, day ñëw rek ci li nga xam ne moom la Pastef di doxee chaque jour muy le don de soi pour la patrie parce que àdduna boo ko bëggee doxal il faudrait que lii nga am ko mooy le mouvement d' ensemble mooy ñëpp jugandoo xàccandoo dóorandoo moo tax saa su ne boo leen déggee Pastef temps yéen a ngi dégg bracelet yi ñuy wax mouvement d'ensemble boobu la dañu boole lépp suñu xol suñu doole suñu effort yëpp pour la réussite te lool moom moo moom la ñu wane fii ñun waa Pastef Lantar te loolu la ñu dund. Mhm. waaw incha allah tey prévoir nañ 1500 kits parce que on avait prévu 900 ak yeneen yu ajouté waat je pense que globalement. mille neuf cent kitu ndogu yoo xam te dañ ko dañ ko prévoir tey pour aujourd'hui te daaw cinq cent rek la kon tey yeneen mille yokku ci kon sant yàlla daal mhm. waaw comme Pastef ni ñuy def rek bu ñu defee appel de fonds wala benn lancement de cagnotte xam ngeen ni Pastef doomu Sénégal rek ñoo ko séq ñoo fi nekk xool ñi nekk sama ginnaaw yëpp ñi ñëpp fi lañ juddoo samay mag ah samay kilifa rawatina ak jeunes yi ndaw yi samay moroom seen xaar lañ génn seen mille francs seen deux mille seen cinq mille waaye tamit am nañ ay mag ak ay ndijaay ak ay tante ñu mel ni euh, grand Alioune Gueye ah, ak soxna Khady ñooñu nekk États-Unis di xeexal Pastef rawatina seen grand Alioune Gueye nga xam baa ñu benn yoon dañuy génn seen xaa di ko def ci li nga xam te ni mooy ci appui bi nga xam si nga xam moom lañ nekk muy Lansar pour lépp dox. <laughs> waaw xam nga Pastef duñ ne mouvement sax dafa Pastef dafa am luñ ko duñ ko bindee Pastef dafa doon li nga xam te ni c'est une coordination dafa am boo ñëwee ci commune day am ay cellules. comme ñun ci cellule lañ ni ma nekkee adjoint coordonnateur communal dafa am ay cellule cellule yooyu nag ñoom dañuy def ñoom ñooy base bi parce que ñun suñu politique du dañuy jël décision rek ca kaw base bi dañuy waxtaan ñu xool li nga xam ne moom moo baax ñu soumettre ko coordination coordination yóbbu ko ci département donc mais nag tey li ñuy def nii dañ ci ànd ak yeneen mou yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen bonne ak yeneen mouvement comme mouvement bi nga xam ne mooy son of the of bi nga xam ne tey patriote moo ci nekk ay patriote lañ mais aussi am beneen démarcation bu ñu bëgg a def ci social ak lépp am beneen mouvement First of the euh, Sénégal First bi nga xam te ni tamit ñoom dañoo ñëw pour accompagne si bis bi te ñooñu tout récemment gis activité bi ñu def au niveau de parcelle seen lancement bi donc ñooñu ñoo ci ñëw jàpp parce que ñun dañuy liggéey te loolu lañ gëm tout d'abord di wax ne dañoo am un regret dañu am une désolation naqar bu rëy naqar bi mooy lan xam nañu révision révision liste électorale nu muy demee révision ni muy demee cest à dafa waroon am révision ordinaire am exceptionnelle au moins war na durer six mois trois mois yi ñu doon ordinaire yeneen trois mois yi ñu def ko exceptionnel mais tey boo xoolee état du Sénégal bi nga xam ne tey Macky Sall moom lañ jox li nga xam ne moom moo war a ar aar suñu démocratie aar suñu droit ak suñu ak suñu ak ak suñu yelleef moom tey xale yi nga xam ne waroon nañoo inscrire ci délai bu yàgg gis nga leen dañuy daw ay 5 heures du matin bëgg a inscrire bëgg nañu exprimer seen droit civique mais dañ leen ko xañ loolu day dugg ci violation suñuy droit violé nañ seen i loolu la ñu naqaru mais comme état de droit nekk am ñi xam dañ ko war a encadrer lii li ñu njëkk a la di wax démocrate yëpp ñu xam ne tey li fi xew ñu ngi salfane seen ak ak donc xale yi nag li ci des mooy buñ la xañee dara di la jaay doole te jaay doole jooju dakkul nag ba léegi ñu ngi ñuy jaay doole mais teewul xale yi ñoom ñu ngi am détermination ñun def nañ ci liggéey mooy wër nañ def wër nomba bi ngay dégg Pastef di ko def ci cellule la commencé def nañ wër nomba maanaam dugg ci kër yi primo votant yi ñi nga xam dañu war a dañu leen defal ay non inscrits ñu am droit de vote depuis élection yi pas législative mënuñu voter ñooñu dañ leen a dugal ci nga xam ay liste pour encadrer leen ñu dem inscrire mais ba léegi daa tagga tembe tey boo demee si si jidda caaray kaw mairie ba waa ji une heure la ñuy wàcc commission bi une ñii des fois au plus ñu ne quatorze seize heures ñu ne dañoo sonn te normalement dañoo waroon liggéey ba samedi liggéey dix huit heures mais ko kon loolu dañ koy déplorer lu ñuy déplorer la kaala boo xam ne ñun naqari nañu mais nag comme li ñuy wax ñun bàyyeeku ñu benn yoon fi ñu bëgg dem ñun xam nañ ko te ndaw Sénégal lañ ci àndal waa Sénégal lañ ci àndal te baat bi mooy population bi parce que dama naan développement ñeenti pays yi rek la d'abord il faut dégg nga am sa population nga am une planification muy deuxième P bi bi mooy lan ngeen am euh, prospérité boo xam ne waxtaan la ku nekk indi fukkam ñaar dërëm comme ni ñuy def nii mais beneen P bi mooy day tax pauvreté daal di reculer bu reculer dara mënu ko woon li ñu may wax nag ñeenti yi lenn rek moo ñu mën a tax ñu ñu am ko mooy ñu am stabilité du pays mooy P mooy que cinquième P bi te Sénégal ñun xañ nañ ko président Macky Sall tey kenn xamatul ñun nag ñu ngi ci di kaas li nga xam mooy xew ci commission yi pour ñu jël ci ay matuwaay nañ ci ay matuwaay te loolu moom mooy taxawaay donc daal loolu mooy si naqar bi nga xam wax nañ ko mais ñun ñu ngi taxaw di ànd ak xale yi di leen gunge pour ñu mën a inscrire ci liste électorale yi incha allah. Ahmed man maay responsable des élections au niveau de Djida Thiaroye Kao euh, di nekk aussi le coordonnateur de la cellule PASTEF euh, Touba Pikine. waa ndog bi moom activité sociale yàgg na PASTEF yàgg nañ dafay activité sociale ku wax sa slogan nekk la don de soi tey booy def activité sociale. du nekk luy bett kenn ndax ñun don de soi la ñu woote yàgg nañ ko def di ay yeneen édition lu ñuy defaat ren aussi avant defaat nañ ci ay avancées yu nga xam ne amul woon eh, édition yi jàll ñu ngi ciy sant yàlla di ñaan aussi yàlla mooy eh, moyens yi ñu amoon ak eh, jumtukaay yi nga xamante ne dooleeku na si te amuñu ko édition yi parce que loolu avancement la yokkute la dañ ciy sant yàlla di ñaan aussi édition yi di ñëwaat ñu gën ci am ndam bu neexee yàlla ren bu ren bi 1500 incha allah rabbi voilà. voilà. message bi ñu joxe mooy dañuy naqarlu ni nga xam ne moom la tegee euh, processus parce que loo xam ne dafa am révision ordinaire am révision exceptionnelle yow nga ñëw ne da nga def ay révision extra extraordinaire def lu la neex la Macky Sall il est injuste on le dit et on l'assume Macky Sall respecté wul Sénégal. respecté wul loi respecté wul constitution lu ko neex la xam révision yi su fekkoon da ko arrangé euh, day militer en sa faveur du ko defee nii dina ko teg ci yoon mais xam na ne arrangé wu ko xam na ne suba bu ñu demee élection il va perdre mu salfaañe def ko lu ko neex mais du ko ci génne on fera le maximum parce que ñu ngi dans les commissions on fera le nécessaire ci enrôlement yi bu jàllee également dinañ def ay massification incha allahu rabbi pour sensibiliser le maximum de personnes xamal leen enjeu yi yi war a tax mag Sall jóge ci réew mi parce que du nit ku jub du nit ku dëggu ay faux ay foo type lay jël teg leen au devant de la scène ñu nekk di def ay forfait dans ce pays on le dit et on l'assume ragaluñ ko li may li may daaneele rek ma terminer ko mooy dañuy naqarlu arrestation yi nga xam ne mooy am euh, rawatina bi mujjee am démb muy Diomaye fay ñu arrêté ko injustement respecté wuñu ay droit am kan la ñuy kan la ñuy convocation 22h nga a wuy ji 22 tey plainte sax bu ñëwee chef de quartier bi andi la ko danaan la bàyyil ba suba nga wuy ji mais du ay guddi ngay wuy kuñ ko wax teguñu ko ci yoon ak euh, heure yi nga ak situation bi nga xam ne defee nañ ko di leen wax ne ñu ñun ñu ngi seen ginnaaw am nañ suñu soutien di di naqarlu aussi sunu frère de la JPS le coordonnateur Babacar Ndiaye qui est arrêté Euh, ak euh, contraintes yi nga xam ne teg nañ ko El ak partie bi di wax ne nañu gën a jàppante gën suude bu ñu ragal te xam ne Sonko mooy sunu candidat te il sera président incha allahu rabbi si élection yi di ñëw. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Mouhamed Ngom dëkk fii Lansar jiite mouvement bii di euh, mouvement Sun of Time ma ànd ceeg sama gars yi nga xamante ne ñoom chaque année dañ koy def. vu que gis nañu Pastef ak taxawaay bi mu am ak vision bi mu am ci Sénégal te ñun ay ndaw lañu am la même vision ñu ne pourquoi pas ñu ñëw ànd ak ñoom am parfaite collaboration ànd liggéey ndax comme ñoo dëkkee koñ bi mën nañoo ànd distribuer ndox bi mu nekk moment de communion moment de bonheur et puis mu nekkaale moment de partage loolu moo waral ñun waa mouvement Sun of Time nga xam ne suñu œuvre yëpp li ëpp ci social la ak ci développement personnel ñu ne pourquoi pas ñu ñëw ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa Pastef ndax gis nañ seen liggéey bëri na ay kuréel yu fi nekk ci wàllu politique ñu bëree bëri mais ñun vu que seen organisation seen détermination ak seen engagement ñu xaw a méngoo ci yooyu yëpp moo tax ñun ñu ne suñu ndogu daal bu ñu koy organiser daañ ci ànd ak waa Pastef loolu moo waral tey ñu ñëw ànd ak waa Pastef vraiment di kontaan di sant di gërëm ñëpp macha allah. dizer